Euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. Paul, de port maritime, l'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte. démb lañ doon tànn ñi nga xamante ñoo war a représenté di askanu Sénégal fofu ci pencum ndaw réew ma muy 15e législature ginnaw nak biñ fi amalé démb ci journée dimanche bi li nga xamanteni moy élection législative anticipée du 17 novembre 2024 mu doon bëss bo xamanteni encore bindaat nañ ko ci taarixu histoireu Sénégal diko waral nak suñu sukkandikoo ci walu politique lepp lu jëm ci walu démocratie dafa daldi di feeñaat ndax té jongante la bi nga xamanteni ñeen ñeent fukki

sénégalais yi wat nañu maturité wat nañu sérénité wat nañu li nga xamanteni moy liberté jëmale ko ci li nga xamanteni moy démocratie ku ci nek dem nga voter ji jamm ñibit ci ci jamm résultat yi dal di génn ci jamm lu ñu ko rek moy abstention bi nga xamanteni ni gis nañ ko dal ci ñu bëre ñoo xamanteni ni dafa melni ni génn ñu dembu dem voter ji ni présidentielle yi malone mais ça, su né nag non lay démé fulla bi ñu jox élection présidentielle bokul fulla bi ñu jox li nga xamanteni dal moy élection législative fi ci Sénégal nonu nous le depuis 1960 bi ñu jotee suñu indépendance ba tey à chaque fois que ñu jëm ci élection législative dañuy gis dal taux bi fay dal di wàññeeku jëmale ko dal ci ñuy voté suñ ko xaymaa nak fichier électoral bi ñu ngi ko xayma ci 7 millions et poussière d'électeurs ci biir 7 millions et poussière d'électeurs yi loolu war a représenter lu toll ci 39

provisoire di première tendance yo xamanteni signalé wuna té te bu mu signalé wo ku nek xamna ni di parti au pouvoir di passif ñom ñoo dal di def ben dal di rafler lu tollu presque ci député yi nga xam siège nek qui ci assemblée nationale ñom ñoko dal di rafler donc bala ñi ñew ci lool dañuy dem xol ji ñi nga xamanteni dal moy société civile bi ginnaw nak bi nga xamanteni ñom ci seen bop ñi ngi doon saytu li nga xamanteni dal manam élection bi jëmele ko qui ci ben rapport bo forum civil indi nako joxé na ay signaux globalement c'est positif jëmale ko ci scrutin bi ñu le 17 novembre le lool forum civil dal dina publier rapports intermédiaires. rapport intermédiaire jëmale ko dal ci scrutin bi nga xamanteni moy le 17 novembre 2024 ginnaw biñu ñu nak ci mission d'observation yi ñom ci seen bopp seen rapport dafa melni ay indicateurs yépp dafa nek au vert ginnaw nak gis nañu benn forte participation bo xamanteni ay jigéen la ak ay ndaw yo xamanteni ay jeunes la bo sax ci doli mu don dal ay jigéen yo xamanteni ni ñoo nekkoon ci fil bi muy rapport bobu nga xamanteni dal li di société civile génnee nañ ko ñom dal lu ñu mën a jàpp daal que li di élection yi dal japp nañu que dal que lepp lu mu waron jaar dal jaar na ci yoon donc gis nañu dal lépp loo xamante ni daal ay signaux la doon na daal li nga xamante ni dafa nekk au vert comme ni ma koy waxee nag émission la boo xamante ni wax sa xalaat la sénégalais bu ci nekk mën nga jël sa téléphone daal di woote ci 77 751 59 59 nga dal di joxe sa xalat ci ni nga gisee ni élection yi amee ak résultat yi nu mu daanoo ginnaaw 41 liste yi nga xam si ñoom ñëpp dañu bëggoon dagaan baatu askan bi pour am majorité foofa ca pencum ndaw réew ma ginnaaw loolu nag sénégalais yi ñoom ci seen bopp ñoom ñoo defal seen bopp ci seen ay choix ci choix yi nag ginnaaw nag fa tolloo dernière calcul yi daal muy provisoire fi ñu gum ni war jox daal parti bi nga xamante ne parti au pouvoir di passif, lu toll ci 131 sièges yi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci assemblée nationale bu leen fàtte ni que assemblée bi 165 sièges la nañu jàpp ni que daal cent trente yëpp lii di parti au pouvoir di Pastef ñoom ñoo ko daal di raflé ginnaaw nag bi ñu gisee benn victoire boo xamante ni def nañ ko ragia à travers le Sénégal ki ci topp di takku wàllu takku wàllu nag suñ ko xoolee mooy l' ancien président de la République Macky Sall moo nekkoon tête de liste bi ànd ceeg waa parti démocratique sénégalaise ak li nga xamante ni mooy parti réew mi ñoom raflé nañu daal lu toll ci 16 sièges yoo xamante ni daal dinañ ko am foofu ci assemblée nationale. Sénégal suñ fa 3 troisième position bi jam ak njëriñ muy ki nga xamanteni moy Amadou Ba ak coalition ñom dal raflé rafle nañu juroom ñaari siège mais li ñuy wax ni c'est provisoire c'est pas encore définitif d'après suñu sukkandikoo ci calcul yi ñu jot ci dernière tendance yi mo ñu joxagum li ñu tollu ni suñ fa jógee dañuy xoli benen bo xamanteni tay ji muy Jam Kiri, di sàmm sa ñoom ñoo ñëw war am ñetti siège sàmm sa kàddu nag suñu ràññee kii di teddali si bi di woon Barthélémy Dias di maire u Ndakaaru ànd ceeg Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Agir Bougane Gueye Dany gëm sa bopp ñoom daal ñetti siège la ñu daal di am foofu d'après daal résultat provisoire yi nga xamante ni jot na wadd démb ci bureau de vote yi nga xamante ni jot nañu calculer li nga xamante ni jot nañ ko fa am ba tey suñ fa jógee ñu gis les nationalistes nationalistes nag suñ ko waxee maanaam mooy kii nga xamante ni mooy Tahirou Sarr ñoom am nañu benn voix indiwaatal bi nga njëkkoon indi ci kaw ba tey ji pare guñu fa mooy euh, national yi ñoom am nañu benn voix nationalistes yi nag mooy ñoom Tahirou Sarr ginnaaw loolu ñu dem ci Sénégal kese Sénégal kese nag mooy Abdoul mbay ñoom Thierno Alassane Sall République des valeurs ñoom it dinañ am benn siège Soppi Sénégal ñoom it ñu nemmeeku ci ñoom dinañu am benn euh, siège muy ñoom Doudou Wade ñoom Tafsir Thioye ñi nga xamante ni dañoo génn ci parti démocratique sénégalais dem ak ak li nga xamante daal mooy seen liste am benn siège suñ fa jógee dem seeti daal li nga xamante ne mooy naataange naataange aussi dina am benn siège. ànd ci colité am ben siège ànd beesal Sénégal muy a ki nga xamanteni moy abdoulaye Abdoulaye Sylla Ecotran dina am ben siège àndu nawlé am ñaari siège nonu dal lañ ko tabé jëmale ko dal ci résultat provisoire yi nga xamanteni dal 165 sièges yi nga xamanteni ni ñi ngi koy xëccoo fofu ci penjum ndaw réew li di parti au pouvoir di Pastef dina rafle daal 131 sièges topp ci kii nga xamante ni mooy pa takku wàllu moom dina jël seize sièges yi lii nga xamante ni mooy jàmm ak njëriñ jël ñetti juróom-ñaari sièges Sama sa kàddu jël ñetti siège en tout cas moy li ñu nemmeeku dal ci li nga xamanteni dal daal ko no ci li nga xamanteni dal moy élection yi nga xamanteni dal daal génn nañ ci démb ci jamm ak salam comme niñ koy waxé rek jongante foo ak ree la sénégalais yi nak ñom ñoo dal di def sen choix suñ koy waxé ñom ñoo dal di confirmer li nga xamanteni dal joxon nañ ko ñi nga xamanteni moy parti au pouvoir le 24 mars dañ dal indi indiwaat confirmation bi donc lepp lu sénégalais mëna def rek manam moy respecter li nga xamante ni daal mooy choix sénégalais yi parce que ñoom ñoo génn dem voté ji donc du ñu def dara lu dul félicité ñi nga xamante ni mooy quarante virgule soixante pour cent yi nga xamante ni dem nañu participer ci élection bi donte ñoom dañu représenté rek li nga xamante ni mooy trente pour cent bi nga xamante ni mooy fichier électoral bi ci 7 millions yi mais dem nañu accomplir seen devoir civique et citoyen mais quant à nag abstention bi gis nañu bare na lool lan moo waral abstention bi am foofu la ñu war a posé wu question sénégalais yi dañoo découragé jamono ji jëm ci politique politiciens wala sénégalais amatul yaakaar wala échec nouveau régime en tout cas li abstention bi sénégalais yu dem na nga le peuple sénégalais ak les politiciens campagne bi nu mu déroulé lu ci ëpp ñu programme xassante la ñu dégg ay mots violence ay tontuwante la ñu dégg est-ce que loolu aussi taxul abstention bi am ci biir le journaliste Adama Gaye moom bu mu voté ba pare indi na ci daal benn analyse boo xamante ni ak jàngat bi nga xamante def na ko jëmale ko daal ci li nga waral abstention bi su des vidéos Adama Gaye bi disponible na ngeen jox ñu euh, sur euh, le constat que vous avez fait euh, par rapport à, à tous ces centres que vous, que vous avez eu à visiter. Ah mais ça se passe de commentaires, ou plutôt euh, trop de commentaires à faire là-dessus. Euh, c'est constaté qu'il y a une désaffection de l'électorat et que c'est une ambiance fantomatique euh, qui traduit, si on ose dire, euh, l'état d'une démocratie euh, qui n'est pas vivante. Euh, c'est comme si l'électorat a le sentiment que ce n'est pas par les urnes que ces problèmes peuvent être résolus. Donc véritablement, il y a de quoi avoir beaucoup d'inquiétude et j'espère euh, qu'au sortir euh, de ce scrutin, quels qu'en soient les résultats, euh, qu'il puisse y avoir un sursaut collectif, aussi bien des acteurs politiques que des citoyens qui sont le cœur de la démocratie, pour réinventer d'une certaine manière, remettre le métier sur l'ouvrage pour savoir quelle doit être la direction de la démocratie sénégalaise. Une démocratie n'en est pas une sans la participation pleine et entière des populations. Vous n'espérez pas que d'ici 18 heures que les choses puissent changer <laughs> Mais bon, l'engouement, on ne peut pas deviner euh, qu'il puisse se produire, qu'un sursaut puisse se produire, euh, c'est une évidence que l'électorat a décidé euh, de voter avec euh, ses pieds à domicile, en restant à la maison, prendre son thé et marquer de manière flagrante son désaveu. Sur le constat que vous avez fait par rapport à tous ces centres que vous avez kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy kaddu le journaliste Adama Gaye jëmale ko daal ci abstention bi nga xamante ni gis nañ ko daal ci la majeure partie de la population plus particulièrement des votants ñi nga xamante ni waroon nañu accomplir seen devoir civique et citoyen gisuñu leen est-ce que justifié wul benn désaffection diggante le peuple sénégalais ak ñi nga xamante ni mooy les acteurs politiques

ko gis ko daal ci élection yi ginnaw nak bi amé li di campagne électorale bi ku nek gis na ni nañ ko doxalé ak élection bi numu démé dem na ci jamm li mëna feñ dal moy Sénégal réewu démocratie la té ginnaw bi nga xamante dal ay bureau de vote yu bari et nañu mën nañu demee ko dal lu tollu ci 40 départements ci 46 partie yi li di parti au pouvoir di PASTEF daf ko dal di raflé djel siège yëpp yi nga xamante ñom ñoleen wara représenter fofu ci assemblée nationale seen tête de liste nak ka ñëpp xam nañ ko waxon nako ci campagne bi dafa melni ni mo moo ko mo confirmer wu xamoon ni ko opposition amul Sénégal ñom la jox baat lu mu dee dinañ am 150 cinquante députés tey ñu ngi tollu ci 131 d'abord fiñu tollu ni résultat provisoire la du résultat définitif donc donc mën nañu basé wu dal ci li mu amna am na lan problème bi nak ci opposition bi je crois que la question fofu lañ ko wara dem seeti yi lan mo tax tay opposition bi malgré lepp lo xamanteni xewna fi mais taxul le peuple sénégalais dañuy jëlat un cadre ak sen confiance jox ko ki nga xamanteni dal manam moy le parti au pouvoir plus particulièrement muy passef woné na ne que que actuellement il est le maître du jeu dans la politique fi ci Sénégal yaakaar naa ni li ko confirmé mooy le 24 euh, mars 2024 ginnaw nekul ci candidat yi mais porté na ki di Bassirou Diomaye Faye ba yobou ko ci bopp li nga moy la République du Sénégal ci biir loolu aussi ñëw nañu huit mois après dem seeti ji daal li nga xamante ne daal mooy pencum ndaw réew ma ci biir loolu tamit mooy assemblée nationale rafle na fa daal ay sièges yoo xamante ni à l'accoutumée nii la mës a demee fii ci Sénégal à chaque fois que le parti au pouvoir gagner élection présidentielle suñu demee ci élection législative moom la ñuy jël li nga xamante ni mooy majorité foofu ci assemblée nationale donc dañuy mën a tënku daal ci li nga xamante ni nañ ko fi gis donc c'était évident ñu bare xamoon nañ que noonu lay demee donc bettul ñu bare aussi chez jii Sénégal mais c'est Razia bi numu mu ak par rapport ak yenn kangam yi nga xamanteni tay ki di deuxième avec 39,75 de la dafa mel ni loolu confirmé wu ko dafa daal di

représenter le Sénégal fofu ci pencum ndaw réew à ak lan moy mission tayji actuel régime jëmele ko dal, ginnaw biñ ko joxé pouvoir exécutif jox ko pouvoir législatif aussi pour que mu doxal est-ce que blocage warna na amati est-ce que excuse warna na amati je crois que tant de la politique dafa à dire jeex à partir d'ici ñu sommes ci li nga xamante dal moy mooy liggéey bi ndaxte lolu lañu gëna soxla jamono ji ñu tollu ni donc mon ni ma koy waxé rek émission bi nak tay wax sa xalaat la sénégalais bu nekk fofu tollu mën nga woote daal dugg ci biir joxé sa xalaat sa gis-gis naka nga jàngatee élection bi ak tay lan mo expliquer li ak lan mo tax tay sénégalais yu bari tay ñëwuñu dal di def li nga xamante dal moy mooy mission euh, devoir civique et citoyenne manam accomplir seen mission ndax dañu décroiser wala découragé wuñu wala ñak gis programme ci li nga xamante manam moy élection ci campagne bi moo tax en tout cas ñi ngi leen di xaar toujours ci 77 751 59 59 ci biir lool nak dama gis ni que ki nga xamante moy Bougane Gueye Dany en tout cas wane na en tant que démocrate bokk na ci nga xamanteni bi résultat provisoire yi commencé daanu mo njëkk dal di adresser li nga xamanteni dal moy félicitations ak ki nga xamanteni dal moy mooy Pastef ak sen tête de liste ginnaw lool nak moom président mouvement gëm sa bop lay jambar félicité na tête de liste parti Pastef sénégalais nak ñom ñoo daldi confirmer lu ñu confirmer manam moy sen choix le 24 mars bi ñu génn ci biir lool nak mi ngi remercier képp ko xamanteni ay camarades am nga ngeen àndoon ci sam sa cadeau jëmele ko dal ci engagement bi nga xamanteni dafa and ak détermination ñu manifester ko ci biir campagne bi ginnaaw lool nak lepp lo xamanteni ay conséquences la ñi ngi réitérer dal sen ancrage jëmele ko ci opposition bi té di exhorter li di camp présidentiel bi désormais ñu penché wu jëmele ko dal ci lepp lo xamanteni moy satisfaction soxla sénégalais en tout cas fier na dal ci démocratie sénégalaise ba nopi mu dal ci heureux ci comportement des militant bo de sympathisants. wala sympathisant bi nga xamante dal qui da nga bok ci gëm sa bop les jambar ginnaw nak lépp luy défi yo xamante dal d'Al, di nañ koy relever muy ay cadre yo xamante dal daal Bougane dañi bok ci coalition sam sa cadre sen tête de liste di Barthélémy Diaz ginnaw bu mu dakar au profit de Abbas Fall donc lool dal nga l'idée li day woné wat ben symbole démocratie ndaxte jogante foo ak la wax naa leen ko ndam li du génn Sénégal ku ci nekk dafa amoon yéeneem pour représenter les Sénégalais Sénégalais yi nag ñooy choisir wax naa ko fi waxati ko fi muy Pastef di sàmm sa kaddu di jam ak njëriñ di tak ak walu amul benen ndam buy génn territoire sénégalais yéen ñi doon jogante yéen bokk benn carte d'identité yéen bokk benn identité yéen bokk benn république donc je crois que tay c'est le peuple sénégalais qui a choisi ñan ñoo leen doy pour ñu représenter leen ci pencum ndaw la des nak moy ñay dem fofu sénégalais yebal leen ñom ñoo war maté taxaway bi jëfé ko woné ko ba sénégalais duñu du ñu rus du am gatché donc ce que je peux dire rek mooy à a raflé lépp loo xamante ni tey traversé woon ci chemin jëmele ko ci siège donc euh, duñu def dara le dul féliciter encore féliciter aussi la maturité du peuple sénégalais ci stabilité ak paix bi nga xamante ni indi nañ ko wat ko démocratie lenn mo après tant de politiques, tant de querelles depuis 2021. Sénégal yëpp ci coow la ñu nekk ci politique lañu nekk ci wax yu dul jeex lañu nekk je crois que nag dafa jot tey ñu bàyyi parti au pouvoir muy Pastef ak président Bassirou Diomaye Faye sénégalais yi ànd ak ñoom gunge leen ñu liggéey Sénégal parce que animosité amatu fi njëriñ li am solo maanaam mooy lan ñoom la ñu fal suñu gisee ni que li ñu leen dénk matal nañ ko nañ ko def suñu gisee li ñu leen dénk matal nañ ko nañ ko def en tout cas sénégalais yi ñoom ñoo choisir te mandat bi pour juróomi at la donc contrat bi ficelé nañ ko signé nañ ko lenn desu ci lu dul ñu daal di topp seen ginnaaw gunge leen jàppale leen ci bépp condition nag boo xamante ni waxee nañ ko ñu xam ne ni que ñun ñoo def suñu choix ndaxte nëbbuñu ñu ñu dara nag. ku nekk mën na ne niw daf ma nëbba jikkoom mais sauf Pastef Pastef musul nëbba jikkoom ni muy doxee démarche am moomu la yàgg wone ci opposition ba jël pouvoir. ni muy doxé non la woné assemblée nationale ak quatorzième législature na muy doxé mom la woné ci campagne yi ñu génn ba sénégalais yi kóoluwaat ko jox ko li nga xamante ne majorité kon ñoom ñu dara li am solo moy am solo moy il faut que sénégalais yi amat raison garder ñi di politiciens yi amat raison garder ku ci nekk dem tënku wat liggéey ñu bàyyi leen ñoom ñu liggéey ñu doxal xulo bi dafa doy xastante bi dafa doy tontuwante bi dafa doy suñu waxee lu jaar yoon xayrun suñu waxee lu jaarul yoon xayrun les sénégalais ont fait leur choix ne yéen ñii kat yéen ñu doy yéen lañu dénk suñu république yéen lañu dénk suñu assemblée nationale yéen lañu dénk suñu justice donc doxal leen ci nu ñu bëgg ngeen doxalee kon nag je crois que dara desu fi lu dul ñu assumer parce que les sénégalais ont fait quand même leur choix donc dara desu fi.

justice et euh, il sort par la grande porte, il a pris une décision euh, sage. xam-xam stratégie de communication observer pour François Assane nax nañ seen budget dafa musa di Sénégal oui Sénégal ba Je vous présente les principaux quartiers et attractions de Dakar au Sénégal. d'Université, de port maritime, d'aéroport et de chemin de fer depuis 1870. entendu ici, c'est euh, il sort par la grande porte.